moo tax ku jóg dem wax yoon pour mu àtte. d'accord tey Sénégal bu doon yoon dox doxul. Mhm. kenn du dem ci yoon opposition day dem ci yoon. pouvoir dem ci yoon. lam sa naa citoyen lam naa dem ci yoon opposition bi que yoon la parce que euh, xam nga aussi il faut que ñu éviter chiffres yi euh, sans pour autant joxe ay précision mhm. euh, boo ñëwee par exemple 4600 et quelques manifestations ci 10 ans. Mhm. équivalence bi xam nga lu mu doon. 460 manifestations par année xam nga année ñaata jour la 365 jours maanaam yow romb nga bis bu nekk manifestation doo ma ni opposition sénégalaise doo boobu ba tey ñu ngi nekk di manifester matin midi soir donc li ñuy wax en fait mooy que manifestation yooyu ñuy jël mooy comme par exemple bërki dem ba ñuy tere ni dof Euh, stade bi mu doon def parce que concert dañ ko ciy boole. tànn biir yi dañ ko ciy boole. sabar yi dañ ko ciy boole ak yeneen lépp li nga xamante ni sur la place publique la da ngay nga def demande euh, da ngay def lettre d'information ñoom ñooy apprécier bu ñu ñëwee dañ koy autoriser ñu autoriser bu ñu nee dañ koy apprécier euh, dañ koy dañ koy kii interdit ñu ko. maintenant léegi nag ci loolu la ñuy joué ni ñu 4000 et quelques manifestations sans nañ si interdire alors que encore une fois 4000 et quelques manifestations alors que 10 ans xam ñaata ñaata jour la. 3665 jours maanaam manifestation yi ëpp jours yi ci 10 ans. xam nga loolu yanu bu maanaam te aussi ñun senegal la nekk donc xam nañu ni lool du ay manifestation yoo xamante ne ay manifestation de contestation la maintenant beneen mbir bi aussi bu ma bu ma bu may dégg cest à euh, gis nga dafa yomb trop nga ni ñëw toog ci télé saaga ay infection dem ñibbi fii boo juumee ci virgule duñ la ko baal mm-hmm. Pape Ndiaye preuve la Pape à l'épreuve la keneen ak keneen ak keneen bu ñu laxasee ba catégoriser ba ni yow da nga far ci opposition bi wala yow da nga euh, haine wala da nga contre Macky boo juumee virgule duñ la ko baal. Hmm. mais bu nekkee benn côté bi nga nekk mais saagal ku la neex defal lu la neex waxal lu la neex dara du la ci fekk ñi ngi ñuy naan balle yoo xamante ni ci Afrique euh, Afrique centrale la xaw ma fan ak fan dàmbooj lan la toog wax. Hmm. wala dàmbooj lu mu doon wax ay fen la. Hmm. loo xamante ne ay nit ñoom ñoo ko témoigner. jug jugle émission ñu topp la dóor la ay bal fetal man ñu pompe ma gaz wala ñun ñëpp dañuy fet boo boog effectivement ñu Sénégal bi ñuy dund parce que madame am na sañ-sañu wax lu ko neex day ñibbi tranquillement këram bu xëyee suba dem xool fu ko neex doxantu fa te dara du ko ci fekk mais bi tey amul sañ-sañ boobu tout simplement parce que bi li muy wax arrangé wul peut-être une une partie de la population wala une partie d'un parti politique donc je crois que vraiment euh, li ñuy wax ni nekkul loo xamante ni vue de l'esprit la nekkul loo xamante ni aussi dañ koy créer amul kenn kuy toog ci plateau télé am irresponsabilité bu toll ni di naan da ngay saaga institution boo ko defee waxuma la saaga institution rek demal ci réseaux sociaux yi ñi doon wax ay écart de langage yëpp féetee ci opposition ñu ngi ci kaso bi mm-hmm. amul kenn laa la wax dem dama je défie quiconque ñu wan ma kenn koo xamante ni ci opposition euh, xaw ma naan ci opposition bi dafay wax dara loo xamante ni ci ci ci ci institution yi wala ci gendarmerie wala ci police te nekkul ci kaso bi mais am na ñoo xamante ni ñi ngi toog di saaga di xaste di wax am na ku toog ci benn plateau télé naan benn nit kii bu ñu ko reyoon Sénégal am jàmm nañ ko rey. Mm-hmm. jël kàddu googu nga inversé ko ni benn ministre bi bu bu ko reyoon Sénégal am jàmm nga wax ko nga xool ndëgam di nga fanaan sa kër que cela. et pourtant dañ leen di fekk seen kër Assane Diouf biir këram lañ ko fekk 6 heures du matin ni ko kaay mani militaire yi yóbbu parce que nee dafa am lu mu wax loo xamante dafa ñàkk teggin Ousmane Diagne annoncé waat na que question deful benn affirmation est-ce que du xaalis da ko jox ñu jël contrôle judiciaire donc li ñuy wax ni en fait nekkul loo xamante ni vue de l'esprit la amul encore une fois kenn kii toog ci benn plateau télévision di saaga benn Sénégal fête de l'indépendance président yi koy fête yëpp nañ ma baal hypocrisie nañuy doxal xam nga lu tax Abdoulaye Wade ba mu fiy nekk président de la République de 2000 à 2012 4 avril bu jot mu dem fóon drapeau bi ba mu nekk tous les présidents wax ma ban 4 avril la fekkee mën nañ jógee ci Abdoulaye Wade nga commencé ci Abdou Diouf wala nga dem ci Senghor tant que ñi ngi nekk en exercice 4 avril seen 4 avril la seen moomeelu bopp nañ ko def. mais bu nekkee président da ko def bu nekkee li may wax amul nga wax ma ko bu nekkee dañ ko def seen moomeelu bopp ñoom président yi bu ñu nekkee ci nguur gi si la ñuy fête 4 avril bu ñu nekkee opposition duñ ko fête mais c' est très normal que opposition yi jàpp opposants yi jàpp ni jàpp ni euh, mbirum mbirum mbirum mbirum fetu fetu fetu la te beneen bi aussi gis nga mënuñu demander opposition bi quand même ñu nekk ay hypocrite mënoo ni yow sa siège bi ngay defee conférence de presse dañ koy barricader teguñu ko fenn madame elle est légaliste nañ ñu wax ban loi moo ni tey jii parti bii nii day def ay réunion ñun ko doo doog fi defee ñoom waa benn bokk yaakaar jamono yi nga xamante ni ñu ngi nekkoon di euh, wala benn sigi Sénégal jamono yi ñu nekk di def seen manifestation Abdoulaye Wade sañul woon xalaatul woon naan day dem ci li nga xamante ni mooy seen kër yi ñu doon defee manifestation ni doon ko fi defee opposition bi lu mu métti métti métti Abdoulaye Wade doon bàyyi ñu teen seen seen ay manifestation waaye bu nekkee ngay jël ay député représentant du peuple ñu sol ay écharpe verte jaune rouge yow xooloo écharpe verte jaune rouge bi nga xamante ne moo tax tey jii ñii naan 4 avril terewul nga gazé leen ba noppi nga leen kaay leen ñu euh, ñu ñu ñu def fête indépendance ñoom bu ñu amee fulla waxuma la sax ay tontu de duñu la tontu dañ lay vu ignorer la dem seen yoon. d'accord ok alors ñu jàll ci. xam nga nag mhm. député yooyu muy wax. Mhm. xam nga El Hadj kii Mouhamadou Biteye. Mhm. gis nga écharpe bi ñuy takk. dafa am solo écharpe boobu caaxaan waru ko génne.